galasi galasi saar benn wàll ci lindiin di bataaxal bi yàlla may pool mu bind ko waa galasi man pool ndawul yeesu kirist nit faluma ko te jaariwul it ci nit mu ngi jaari ci yeesu kirist ak yàlla baay bi ko dekkal man ak mbokk yi ànd ak man yépp nu ngi leen di bind yéen mboolooy ñi gëm te dëkk ci diiwaanu galise ne yiw ak jàmm féete ak yéen jóge ci yàlla sunu baay ak Yeesu Kirist borom bi moom mi joxe bakkanam ngir dindi sunuy bàkkaar te musal nu ci àddina su bon si nu nekk dëppook coobareek yàlla sunu baay bi yelloo ndam ba faw amiin man de jaaxle naa yàlla woo na leen ci boppam jaarale ko ci yiw wi nu kirist defal waaye yéen a ngi koy gaawantoo bàyyi ngir topp beneen xabaar fekk du xabaar bu baax bi dafa am rekk ci seen biir ay nit ñiy nëxal xel yi te bëgg dandal xabaar bu baax bu kirist waaye su fekkee kenn ci nun ñëw walla malaaka sax mu jóge asamaan di yégle beneen xabaar bu méngowul ak bi ñu leen yégal kooku yàlla na alku wax nanu ko maa ngi koy waxaat bu leen kenn yégale beneen xabaar bu dul bi ngeen nangu kooku yàlla na alku ndax kon nit laay wut a gëmloo am damay fexe yey yàlla mbaa damay wut a neex nit ñi su ma doon wut neex nit ñi ba tey kon duma nekkati jaamu kirist mbokk yi maa ngi leen di xamal ne xabaar bu baax bi ma yégle jógewul ci nit jëlewuma ko ci nit te kenn jàngaluma ko waaye yéesu krist moo ma ko woon dégg ngeen ni ma doon jëfee bi ma nekkee ci diine yawut yi di fitnaal bu metti mbooloom yàlla di ko jéem a tas bokkoon naa ci ñi gën a farlu ci diine yawut yi te sawar it ci sarti yoon yi fi samay maam bàyyi baraw sama maas gi ma bokkal askan waaye yàlla mi ma tànn lu jiitu sama juddu te woo ma ci boppam ci kaw yiwam bi mu ko soobee xamal na ma kan mooy doomam ngir ma yégal ñi dul yawut xabaar bu baax bi ci mbirum kirist booba nag diisewuma ci ak kenn démuma sax Yerusalem seeti ñi ma jëkk a nekk ay ndawi Kirist waaye réewi araab yi laa dem te gannaaw loolu ma dellusiwaat Damas ba ñu ci tegee ñetti at ma soog a dem Yerusalem ngir xamante ak Safaas dal fa moom lu mat ñaari ayubés waaye gisuma keneen ci ndaw yi ku dul saak doomu ndeyu borom bi li ma leen di bind nag yàlla may seede ci ne du ay fen bi loolu wéyee dem naa réewu siri ak réewu silisi waaye ba tey mbooloom ñi gëm kirist ci diiwaanu yude xamuñu ma woon dañoon déggoon ñu naan rekk ne ki ñu daan fitnaal bu jëkk te daan jéem a far yoonu ngëm wi léegi mi ngi ko yégle dañuy sant yàlla ci man galasi saar ba ñu ca tegee fukki at ñeent ànd naa ak barnabaas dellu yerusalem yóbbaale tiit dem naa fa ndax yàlla ma fa yebal ci kaw peeñu ba ma demee daje naa ak ñi ñu gën a fonk ca mbooloo ma ma wéetoo ak ñoom won xabaar bu baax bi may yégal ñi dul yewut ngir ragal sama coono démb mbaa tey neen te tiit mi ma gunge woon sax de li mu bokk ci xeetu grekk taxul ñu sonal nu ci xarafal ko fekk na mbir moomu nekk coow ndax naafeq yi yoxoo ci suñu biir ak mébét mu bon ngir seet yaatu gi nu am ci Yeesu Kirist ba fexe noo defaat ay jaam waaye yaata lu nu leen benn yoon ngir dëggug xabaar bu baax bi mën a sax ci yéen waaye ñi ñu gën a fonk ak lu mu mën a doon seen sag xoluma ko ñépp a yem fa kanam yàlla waaye ñooñu ñu teg njiit bokk bi ma dajee ak ñoom yokkuñu dara ci sama sas gis nañu ne yàlla nu yebal muy man di Pierre ngir ñu yégle xabaar bu baax bi ma féetewoo ñi dul yawut Pierre féetewoo yawut yi ndaxte ni yàlla jëfe ci Pierre mi ndawam ci yawut yi noonu la jëfe ci man may ndawam ci ñi dul yawut te saak Sefaas ak Yowaana nag ñi ñu teg kenuy mbooloo mi bi ñu ràññee yen bi ma yàlla jagleel ci yiwam ñu fekk si nu ci ba jox nu loxo man ak barnabaas ñuy liggéey ca ña dul yawut ñoom ñuy liggéey ca yawut ya li ñu doon laaj rekk moo di ñuy fàttaliku seen aji néew doole yi fekk sax laxase woon naa ci def ko waaye bi sefaas ñëwee dëkku antiyos yedd naa ko ci kanamu ñépp ndaxte li mu def jaaduwul ndaxte laata ndaw yi saak yónni di ñëw daan bokk di lekk ak ñi dul yawut waaye bi ñuy agsee te mu ragal kuréel boobu fay dal xaraf mu dellu gannaaw di sori ñi dul yawut yeneen yawut yi daldi ànd ak sefaas ci naafeqam ba yóbbaale sax barnabaas bi ma seetee nag ne awuñu woon ci dëgg gi xabaar bu baax bi di jàngale ma yedd safaas ci kanamu ñépp ne ko yow mi yawut ginnaaw dëddu nga aada yawut yi ba dund ni ku dul yawut lu tax nga bëgg sëf diine yawut ni dul yawut nun dañoo ca saanoo ci xeetu yawut te bokkunu ci xeet yi xamul yàlla tey bàkkaar teewul nu xam ne yàlla du àtte kenn ni ku jub ci kaw sàmm yoon waaye ci gëm yéesu kirist kon nun itam gëm nanu kirist yéesu ngir yàlla àtte nu jub ci kaw gëm kirist te du ci sàmm yoon ndaxte du caageenuk sàmm yoon mooy tax yàlla àtte kenn ni ku jub waaye ba tey su fekkee ne nu ngi wut jub ci kaw gëm kirist fekk nu ne fànn di ay bàkkaarkat ndax nag kirist moo sas bàkkaar mukk waaye su ma delloo di sàmm ndigali yoon yi ma bàyyi dëgg-dëgg dinaa wone noonu ne moykatu yoon wi laa ci lu jëm ci yoonu musaa dee naa fekk yoon wi ci boppam moo ko waral ngir ma mën a dund ba amal njariñ yàlla daajaale nañu ma ak kirist ca bant ba te noonu du man maay dundati waaye kirist mooy dund ci man dund mbindeef gi may dund nag maa ngi koy dund ci gëm doomu yàlla ji moom mi ma bëgg ba joxe bakkanam ngir man du ma neenal yiwu yàlla ndaxte su sàmm yoon doon tax a jub fa kanam yàlla kon kirist dee na ci neen yéen waa galasi yéen ñàkk xel ku leen fàbbi ginnaaw bi ma leen yëgalee ci lu leer ni ñu daje yeesu kirist ca bant ba lenn rek laa bëgg ngeen wax ma ko ndax sàmm yoon wee tax ngeen jot xelum yàlla déedéet dangeen a dégg xabaar bu baax bi te gëm ko mbaa du ni ngeen ñàkk xel ba tàmbalee ci xelum yàlla ba noppi yaakaara mate ci seen jëfi bopp mbaadu fitne yi ngeen daj yépp dafa nar a neen mënuma koo gëm bu leen yàlla di may xelam di leen won jalooreem ndax li ngeen sàmm yoon a tax mu def ko mbaa li ngeen dégg xabaar bu baax bi te gëm ko xoolleen ci Ibrahima mbind mi wax na ni Ibrahima gëm ne yàlla te yàlla jàppe ngëmam ni jub xam leen boog ne borom ngëm yi rekk ñooy doomi Ibrahima mbind mi tëral na lu jiitu ne yàlla dina àtte jub ñi dul yëwut ci kaw ngëm kon looloo tax mu yégal Ibrahima lu juutu xabaar bu baax bi ne ko xeeti àddina yépp dinañu barkeel ci yow kon ñi gëm yàlla dina leen barkeel sukkandikoo ko ci seen ngëm ni mu defal Ibrahima boroom ngëm ñiy wekku ñépp ci jëfi yoon wi ñu alku lañu ndaxte bind nañu ne képp ku dul topp lépp lu ndigali yoon wi santaane yàlla na alku bir na sax ne sàmm yoon du tax kenn jub fa kanam yàlla ndaxte mbind mi tëral na ni ku jub ci kaw ngëm dinga dund waaye yoon wi laajul ngëm mbind mi nee na ku mënoon matal li yoon wi wax kon dinga dund ba faw waaye kirist jot nañu ci alkande ji yoon wi indi mu gàddul nu ko ba far alku moom ci boppam ndaxte mbind mi nee na képp ku ñu rey wekku ko ci bant alku nga noonu barke bi yàlla dig Ibrahima baawaan na ba daj ñi dul yëwu te gëm Kirist Yeesu te jot ci kaw ngëm xel mu selli mi yàlla digee mbokk yi maa ngi misaal wax ji ci jëfi doom aadama xam ngeen ni kóllëre gu fas ba noppi waruñu koo fecc walla ñu ci rax dara léegi nag yàlla am na lu mu dig Ibrahima ak askanam mbind mi waxul ak i sëtam mu mel ni ñu bari waaye kenn la wax ak sa askan maanaam kirist li ma ci bëgg a wax mooy lii ndegam yàlla fas na kóllëreem yoonu musaa wi feeñ ñeenti téeméeri at ak fanweer ginnaaw ga du ko mën a fecc ba tebbi digéb yàlla ndaxte xéewal yi yàllay dige bu ñu doon jóge ci yoon wi kon ajootuñu ci dige bi fekk ci kaw dige la ko yàlla maye Ibrahima waaw kon yoonu musaa wi luy njariñam dañu ko wàcceel nit ñi ngir seen jàdd yoon ne fànn looloo doon wàllu yoon wi ba kere set bii ñëw moom mi ñu diggoon dige bi yoon wi nag yàlla tëral na ko jaare ci ay malaaka te am na ku ko jot jottali waaye ajuwul jot jottalikat su fi kenn rekk teewee te yàlla kenn la ndax kon yoonu musaa wi dafa juyoo ak li yàlla dige mukk su amoon yoon wu nit mën a sàmm ba mu jural ko dund gu sax kon sàmm yoon dina tax nit jub fa kanam yàlla waaye yoon wi tëj na ñépp ci dooley bàkkaar ngir ñi gëm yeesu kirist jot li yàlla dige woon ci seen kaw ngëm bi ngëm yeesu kirist feeñagul nag yoon wi dañoo tëjoon ràpp ba kere gëm di feeñ ci noonu lañu yoon wi doon noote ba kirist di ñëw ngir yàlla àttenu jub ci kaw ngëm waaye léegi bi jamonoy ngëm ji ñëwee nekkatuñu ci kilifteefu yoon wi yéen ñépp doomi yàlla ngeen ndax li ngeen bokk ci kirist yéesu ci kaw ngëm yéen ñépp ñi ñu soob ci ndox ngir wone seen bokk ci kirist soloo ngeen kirist kon nag amut xaajale ci diggante yëwut ak kidul yawut ci diggante jaam ak gor ci diggante góor ak jigéen yéen ñépp benn ngeen ci seen bokk ci kirist bu ngeen bokkee ci kirist kon bokk ngeen ci askanu ibrahima te jot ngeen xéewal yi ko yàlla dig galasi saar ñeent li ma leen di wax mooy lii doom ji war a donn baayam fii ak mu ngi ci ndaw ak lu ko alal ji leew lépp du wuti dara ak jaam ñi ko yore tey sàmm alalam ñoo ko yilif ba jamono ji ko baayam apolloon mat nun itam naka noonu laata nuy mat aadaay àdduna ñoonu nootoon ba def nu ni ay jaam waaye bi app bi yàlla tëraloon matee yónni na doomam mu juddoo ci jigéen ci biir yoonu musaa ngir jot ni yoon wi nootoon ndax yàlla jàpp nu ni ay doomam ginnaaw doomi yàlla ngeen nag yàlla yónnee na xelu doomam ci sunu xol mu koy wooye nii abba maanaam baay noonu dootuloo jaam doom nga te ndegam doom nga yàlla jagleel na la cër ci xéewal yi mu denceel ay doomam bu jëkk bi ngeen xamagul yàlla yéen a ngi doon jaamu yeneen yu ñu daan bokkaaleel yàlla waaye léegi nag bi ngeen xamee yàlla walla boog bi leen yàlla xamee nan ngeen mën a def bay delluwaat ci aaday àddina aada yoo yee ñàkk doole te ñàkk njariñ lu tax ngeen bëgg ñu nootaat leen yéen a ngi fonk bés yi weer yi màggal yi ak at yi sama xel dalul ci yéen ngir ragal sama coono ci yéen neen mbokk yi dama leen di ñaan ngeen mel ni man ndax man itam fekk si naa leen ci seen xalaat tooñu leen ma xam ngeen ni sama wopp moo taxoon ma yëgal xabaar bu baax bi coono gi leen sama wopp tegoon taxul ngeen bañ ma taxul ngeen seexlu ma waaye teeru ngeen ma ni bu ngeen doon teeru malaakaam yàlla walla yéesu Kirist waaw fan la seen mbeg jaar ndax seddal naa leen ne su ngeen ko mënoon kon luqi seeni bët jox ma ndax dëgg gi ma leen wax moo tax ngeen def ma ab noon nit ñooñu leen di farle seen mébét baaxul dañu leen a bëgg a tàggale ak nun ngir ngeen far ak ñoom farle baax na bu àndee ak mébét mu baax waaye bu sama jëmm rekk tax ngeen koy def sama doom yi yéen a tax ma dellu ci mitiit ni kuy mattu ba kero jikkoy kirist di mat ci yéen léegi bëggoon naa nekk ci seen biir ngir mën a jubbanti sama kàddu ndaxte xamatuma ni may doxale ak yéen yéen ñi bëgg topp yoon wi xanaa xamu leen li yoonu musaa wi wax mbind mi nee na Ibrahima am na ñaari doom ki jaam bi jur ak ki gor si jur doomu jaam bi judd na bépp doom waaye doom ji mu am ak jabaram judd na ci kaw digéeb yàlla loolu nag am na lu muy misaal ñaari jigéen ñi dañoo bidi ñaari kóllëre benn bi di ajara mooy wone kóllëre gi yàlla fasoon ca tund sinaay yi ay jaam lay jur ajara moomu mooy tund yi wi nekk ci réewi arab yi te it mooy misaalu dëkku yerusalem bi fi nekk tey ndaxte moom ak ay doomam yépp ay jaam lañu waaye yerusalem ga ca kaw mooy gorsi moom mooy sunu ndey ndaxte mbind mi nee na bégal yow jigéen di dul jur te mësula am doom réyal te bànneexu yow mi musula xam coonob mat ndax jigéen ji ñu faalewul moo gën a jaboot ki nekk ak jëkkëram yéen mbokk yi yéenay doom yi ñu dige woon niki isaaxa waaye doom ji juddoo ni bépp doom dafa daan sonal doom ji juddoo ci doole xelum yàlla te loolu mooy law ba léegi lu ci mbind mi wax nag nee na dàqal jaam bi ak doomam ndaxte doomu jaam bi warula bokk cër ak doomu gor si ci ndonoo kon nag mbokk yi nun dunu doomi jaam ay doomi gor lañu galasi saar juróom kirist daggal dagal suñu buumi njaam ngir goreel nu kon dëgër ci seen ngor te bañ delluwaat ci njaam déglu leen man pool maa leen koy wax bu ngeen italee xaraf kon kirist dootu leen jariñ dara te maa ngi dellu di waxaat ne képp kuy faratal xaraf faw nga sàmm lépp lu yoon wi santaane yéen ñi faxee jub fa kanam yàlla ci kaw sàmm yoon taqaliku ngeen ak kirist dëddu ngeen yiwu yàlla waaye njub gi nu yàlla dencal ëllëg nu ngi koy séentu ci kaw ngëm ak ci ndimbalu xelu yàlla ndaxte bu ñu bokkee ci kirist yeesu xaraf ak bañ dara amu ci solo li am solo mooy ngëm gi jëf ci mbëggeel ni ngeen jógtee woon de baax na waaw ku leen dog ba ngeen bañ a dëggal dëgg li ni leen xiir jógewul ci yàlla mi leen woo des na ne tuuti lawiir day tax tooylu fariñ bépp funki waaye teewul borom bi jox na ma kóolute ci yéen biral na ma ne dingeen bokk ak man xalaat léegi nag kii nëxal seen xel ku mu mën a doon yàlla dina ko mbugal man nag mbokk yi bu ma doon faydaal xaraf ci sama waare kon duñu ma fit fitnaale nii te it li may yégle ci deewu kirist ca bant ba dootul naqari kenn ñi farataal xaraf te di leen dëpp nañu gën a sori ci seen réer bu yeboo sax ñu dagg seen ngóoro ba dara du ci des yéen nag mbokk yi yàlla woo na leen ngeen nekki gor waaye nag bu leen ci sukkandikoo bay topp seen nafsu waaye dimbaleente leen ci kaw mbëggeel ndaxte yoon wépp ndigal lii ko tënk na nga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp waaye moytu bu ngeen dee màttante ak di lekkante dingeen yàqante li ma leen di wax mooy lii dund leen ci xelum yàlla kon du ngeen topp seen nafsu ndaxte suñu nafsu am na ay bëgg-bëgg yu méngowul ak yu xelum yàlla te xelum yàlla itam am na ay bëgg-bëgg yu méngowul ak yu suñu nafsu ñoom ñaar dañoo juuyoo ci bépp fànn ba tax lépp lu ngeen bëggoon a def du ngeen ko man waaye bu ngeen toppee xelum yàlla nekkatu leen ci kilifteefu yoon wi kuy topp sa nafsu nii ngay jëfe njaaloo xalaat yu bon defi ñaawteef ak say cër xërëm luxus noonoo ak xuloo ñeetaane xadar diiroo mbagg féewaloo ak xaajaloo ñaan màndite ak xawaare ak yeneen yu ni mel léegi nag maa ngi leen di artu ni ma ko defe woon ñiy jëfe noonu duñu am cër ci nguuru yàlla waaye lu xelu yàlla mi di meññ mooy mbëggeel mbég jàmm muñ laabiir mbaax kóllëre lewetaay ak maandote yoon wi terewul yu ni mel léegi ñi bokk nag ci yéesu Kirist daaj ñu seen nafsu ca bant ba wàcc ko fa moom ak ay xemmemam ak ay bëgg-bëggam gannaaw nag nu ngi dund léegi ci xelum yàlla kon nanu ko topp bu nu tiitaru di dëkkante di iñaanante galasi saar juróom benn mbokk yi ku ñu fekk muy def lu yàlla bëggul yéen ñi topp xelum yàlla na ngeen ko jubbante ak xol bu lawet waaye na nga sàmm sa bopp ngir bàkkaar bañ laa fiir yow itam jàppalante leen noonu dingeen sàmm yoon wi kirist tëral ndax kuy naagu te fekk doo dara dangay nax sa bopp na ku nekk seetlu ni muy beye sa sam bu ko defee dina mën a naw boppam tey bañ di diirante mbagg ak ñi ci des ndaxte ku ci nekk danga wara yenu sab yen kuy jàng kàddug yàlla war naa sedd ki koy jàngal ci alalam jépp bu leen ci dara nax kenn du fontoo yàlla ndaxte lu waay ji moom ngay góob ku ji ngir sa nafsu dinga góob li sa nafsu meññ maanaam ak yàqute waaye ku ji lu soloo ak xelum yàlla li xel mi meññ ngay góob maanaam dund gu dul jeex bu nu tàyyi ci def lu baax ndaxte bu nu ci sawaree bu waxtu wi jotee dinañu jariñu noonu fii ak nu koy man na nanuy defal ñépp lu baax rawatina nag suñu mbokk yi gëm seet leen araf yu mag yii ma leen bind ci sama loxo bopp ñii ngi sal ci seen yaram ñoo ñoo bëgg ngeen xaraf ngir ragal daj fitna ci yégle deewu kirist ca bant ba kuréel gi faydal xaraf ñoom ci seen bopp sax duñu topp yoon wi dañoo bëgg ngeen xaraf ba nu mën bàkku ci seen yaram yéen man ci sama wàllu bopp duma bàkku mukk su dul ci deewu sunu boroom Yeesu kirist ba nu ko daaje ca bant ba dee moo tax ma mel ni ku dee ci yëfi àddina yëfi àddina dee ci man xaraf ak bañ a xaraf dara amu ci solo li am solo mooy nekk mbindeef mu bees ñiy topp ndigal lii nag ne yàlla wàcce jàmm ak yërmande ci ñoom ak ci israyelu yàlla léegi nag bu ma kenn la jëlati ndaxte yor naa ci sama yaram ay lëgët yuy màndargaal ne jaamu yéesu laa yi ne yiwu yéesu Kirist sunu boroom ànd ak seen xel amiin